Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar waaw mais may paa bay. loolu loolu. waaye sa naa la ba midi gaan man pour man tey doo jaay ci café sax. waa ji bititi biir bi ma di gis. mais la la bi ci guddi xaw naa waaye heureusement samay reeni seen jëng laa <laughs> baxal rek dóor mu daal. non bàyyi déglu ma bàyyi sama waay la toogal. mun na wax ne ko xamal leen. Baye sama sama père nga yow yàlla moo ñu boole man bañ naa ko heure bu may yeewoo sa mënuma naan beneen café bu dul sa café. bu xëyee dinaa toog fii naan sa kaas soo ko mën a réfléchir soo ko mën a maay li nga xam ne moom laa war a doxal ci journée bi. café daa am assurance la. mais nag Baye franchement da ngay da ngay da sa santé quoi yow Baye xanaa man sax boo ma woowoon ci guddi si man ma yóbbu la ci poste de centre de santé bi. ah sa santé bi daa ah, sori de. alors bu jege woon sax ñu mën cee dem waaye nag loolu jegewul a sori sax waaw dëgg la dafa sori moom mais balay loolu sax Diouf saar dégg naa ci programme am hmm. dina indi ay médecins de quartier te bu boobaa taxaw bi day gën a yomb surtout yéen seen genre yéen troisième âge beeg yéen xale ndaw yi hmm. boobaa dina gën a neex boobaa taxaw bi nga xam ne war na ci yéen dina gën a yemb loolu yëpp yëg naa ko ah. ah, kon ba ci gox goxaati ndaw yi waaw am ay poste de Mhm. dinañ fexe bu troisième a dugg si ci ah. nga xam ne ñun mag ñi mhm. dañu mën a tëtafu rek <laughs> daal dugg xam nga yow da ngay dob doolu mais yow yaa ngi âge eh, moom eh, maa ngi yëg <laughs> information maa maa ngi ko fooyee ah, mm. toog fii ñu oh. toog fii waxtaan ba ngoon boo paree nga jug nang ak say dem ba wér ma bëf ni wàcc waaw ngay xelil sa bopp waaw ca doo ko xelil bàyyi naanal maa lu ma naan doo ko fay de Cheers oh. <laughs> sama waa ji damay daaj rek boo la gisee rek damay kontaan quoi.